tu ne peux être que dans ça mais tu peux tu, tu règles le problème du chômage tu industrialises le pays l'agriculture on atteint la souveraineté alimentaire on parvient aujourd'hui à arrêter l'immigration clandestine on parvient à trouver euh, des emplois à ces jeunes pour qu'ils restent en six mois en six mois yow bi ngay teg sa entreprise rappelle-toi des six premiers mois une entreprise comme ici est-ce que am nga vitesse de croisière bi. six pour faire les plateaux les habillages on démarre pas voilà c'est ça tu es d'accord avec moi maintenant ci état nga bëgg en six mois mu dox. donc man yàlla dafa ma may ma am une expérience dans la gestion des affaires ce qui fait que xam na période bu normal pour une appréciation objective et profonde ak période bi nga xam ni c'est une période de connaissance d'apprentissage. et une période de de de de de d'adaptation bi nga xam ni mooy war pour maintenant ngay soogaa di mën a taxawal li war et aujourd'hui c'est ça qui a fait mais yow mais mais mais quelque part. ensuite raison yooyu mën na doon loolu mais li taxoon nga noppi. yow yaa ngi doon xaar toujours que ñoom ñu tendre la la main. parce que jàpp nga ne yéen yéen a war a ànd. parce que boobu ba tey je connaissais pas en plus de ça de ce que je viens de dire. la la la qualité de la relation est-ce que reste la même ou elle a changé entre-temps. de la relation entre yow ak ñoom wala entre les man, ak ñoom parce que boo toogee ñi nga xam da nga leen dégg tout le temps ñu génn sept mois muy dem tu peux te demander peut-être y a des qui se passent et tu te dis fan la relation bi nekk xëy na mu meloon dem melu ko tey après ngay dégg ay nit di wax ci sos ngay obligé di génn di def nga démenti et eh, tu sais depuis boobu en réalité bi ma defee point de presse boobu la sénégalais yu bëri soo waay di xam ne ndekete y a pas de contact et ils étaient étonnés je sais que tu fais partie de ceux qui étaient étonnés. non moi j'étais pas étonné je savais qu'il voilà oui peut-être tu étais euh, <laughs> bien informé mais je veux dire vu la qualité de la relation bi nga wax léegi répété ko à plusieurs reprises sénégalais yu bëri mun ñu woon loolu am na et loolu bi ma ko waxee parce que je suis toujours franc et très transparent avec les sénégalais. ci la ñu bare jóge maintenant ni loolu warul mën a ne parce que lii fi am tey lépp luy taxawaay ci taxawaay yu góor ci yu fulla am nga ko fi ba mu. donc dafa am ñu ñu faciliter le contact. donc ñu bare ñëw jaar kër ga gis ko et il a dit qu'il absolument rien. mais dafa am dafa am une personne principalement. boo xam ne moom moo def le rapprochement entre yow ak Ousmane Sonko. am na. ku ci gën a dox am na ñeneen ñu ci dox. mënoo mënoo révéler son identité non la fois passée j'ai parlé de beaucoup de personnes et je vais tout à l'heure ñu ci dox dox yu bare bare bare kilifa diine kilifa aada des responsables de Pastef Cheikh Bara Ndiaye je vais le ñu bare bare colonel Kébé. kan euh, wax tudd naa aussi. <laughs> non kan wax léegi sëñ Moussa Mbacke Noël tudd naa ah, keroog aussi sëriñ Bass Abdou Khadre koo xalaat koo xalaat bi mu déggee ni contact boobu amul ak kilifa gu mu mën a doon ak fu mu mën a toll wax na ak man ku nekk la nga ci mën am na ba bi ñu toogee bi ñu toogee ma gis ki ma mosoon a gis ki ma mosoon a xam ak même type de relation bi mais aussi li gënoon important c'est pas seulement la qualité de relation mais aussi la vision ak yéene bi nga xam ne mais mais mais mais mais mais maintenant nag maintenant nag am na ñi nga xam ne cité wu ma leen parce que je sais que déjà y a quelqu'un euh, qui m'a appelé ku ci dox lu bare muy euh, Baratal Baratal l'homme d'affaires l'homme d'affaires il m'a dit ah mais bon? il m'a dit mais tu peux me citer parce que da nga war ànd liggéey ak pour Sénégal gi Sénégal dala soxla tu peux ma citer voilà ce qu'il m'a dit il n'est même pas au Sénégal hmm. c'est des patriotes c'est des gens qui veulent le développement du pays toute leur vie ils ont œuvré pour le développement du pays et c'est mon ancien à l'école polytechnique tu le sais moom moo ma jiitu mais ñoo defandoo formation ñoo bokk école bi ñu génnee donc ki nga xam ni il a passé tout son temps à travailler pour le développement du pays donc ñu bari ñu dox loolu ba gisee bi am léegi nag euh, point de presse boobu effectivement bi ma koy def. mais mais mais xam nga xam nga euh, euh, mois dernier euh, on se réveille on nu mu tudd la coalition Diomaye président et et du Sud Ousmane Sonko annonce à aux alliés que moom moom kese mooy dem Pastef lay demee ku bëgg nga ñëw langaamu si si si Pastef xam naa boobu nag les sondages étaient bon Euh, ñu dem ba fan yi fan yi gis naa ne Pastef da ngeen dañoo xaw a ñu ngiy recruter des maire euh, hier Ousmane Sonko a reçu dix maires dans le département euh, de de de de de de Mbacké mu ngi mu ngi jël rek xam xamul ndax am nañu nit xamul ndax am am nañu nit ou pas mu ngi jël rek mais bi ngeen demee sàmm sa kàddu ñu xool la configuration de la coalition sàmm sa kàddu ñu xool la coalition de la coalition de Amadou Ba de Taxawu Wàllu euh, Sénégal je pense qu'ils ont réalisé que ñu ngiy def erreur ñu ngi euh, ni ñu doon jéem a snobé nit ñi dellu nañ ci ginnaaw ñu dem jëli la mais ñu bari dañu jàpp ne c'est à votre détriment alors euh, je le accepte c'est à votre détriment je le euh, je vais être précis sur ça je le leur accepte xam nga mën nga ma nangul leen mooy duma dof at bi ma juddu ak bis bi ma juddu dof amoo fa maanaam lépp lu ma def c'est parce que daf ma neex dama kaa bëgg te li may defi daf ma ko jaral lan laa defi moo am solo c'est ça qu'il mooy fekki ki nga xam ni ñett at yi yépp yéen a doon xeexandoo pour benn mbir mooy defar Sénégal en tant que chef de parti lan mooy sama objectif ultime mooy defar Sénégal. malgré que snobé na la Euh, malgré li fi xew yëpp y' problème snobé boobu toog bi. toog bi déglu ma rek kenn mënuma snobé toog bi li ko waraloon surtout mooy wax naa la ko xam lan moo fi ne xam aujourd'hui est-ce que ki ma xamoon moo fi ne wala déet bi ma xamee loolu ba pare laa jël la décision pourquoi cette décision je l'ai prise. de quitter sàmm sa kàddu. pourquoi je prise je en arriver parce que gis nga un leader politique doit tirer des conséquences politiques de son acte man ak Ousmane bi ñuy waxtaan ay quitter la bul quitter nekkul ci débat bi je le précise. nan ngeen waxtaane du ma dugg sur le continuer parce que. mais de manière générale ñaari kilifa yu toog la. de générale mais mais moi parce que dafa am lu ma wax Sénégal yi dama ni leen c'est parce que dégguma ko moo tax ma dugg ci coalition. ah bon. sama premier point de presse je l'ai dit dégg naa yow sa bopp nga répété ko fii d'ailleurs toi même bi nga naan Déthié mii li mu wax nii opposé wu. tu l'as dit toi. Mm-hmm. j'étais écouté parce que boo defee sama point de presse dama ni leen. toog naa six mois dégguma ko te ñoo ngi jëm élection te sama parti parti bi ma yor suñu parti bi ma bokk ak samay nawle mënuñu absenté ci élection yi te li nga xam ni bu fekkoon yàlla def na dégg naa ko ñu ko koy wax parce que dañoo liggéey ak ay cadres plus de trois cents nga couvrir ko ñu taxawul un grand programme de Sénégal bon à et beau à am ay idée ci Sénégal comme tey toog amul plage change amul pour li ñu xalaat ñu koy mën a wax kon nañu dugg ci coalition wut ay député bu ko defee bu ñu demee assemblée ñu koy mën a wax mu koy dégg voilà ce que j'ai dit donc toog pour mën ko wax li ñuy xalaat amul plage d'échange xamuñu ci lu ne pour wax li ñuy xalaat. donc c'était pas un engagement sincère. non c'est pas question de sincérité ou pas. parce que lépp lu ma dugg est-ce que vous êtes engagé avec conviction lépp lu ma dugg lépp lu ma dugg au moment de le faire c'est avec conviction mais gis nga je suis pas de ceux-là qui au fur et à mesure ki avancent ñuy sentir ni sentir ñu seen bopp ci mbir ñu fay des sentiroo woon sa bopp foofu au fur et à mesure qu'on avançait comment ça de devoir li nga xam ni tey boobu ba tey maa ngi koy daw war jàkkaarloo ak ñoom pour engager les critiques je devenais de plus en plus gêné et ku xam Déthié ni muy doxalee ci coalition du kuy dugg ci coalition am ay rendez-vous public muy absenté wu amul et je te dis e ce que je dis là je le jure encore sur le Saint-Coran ci biir coalition bi avant même may wax ak Ousmane ak toog ak Ousmane sama xarit la je lui ai dit écoute demain je dégage de la coalition boobu toogaguma ak Ousmane. boobu giseegu leen. sur le Saint Coran démb maa ngi koy fàttali il est resté pendant une heure au téléphone avec moi pour me convaincre naan bul ko def. xel Thierno Bocoum. je vais pas donner de. Thierno <laughs> Bocoum la. non je vais pas donner de. Ah. kii ma defal lii moom du Thierno du Thierno mais je vais pas donner de mais indépendamment de kooku am na keneen ku ma seqal les mêmes choses je lui dis que je vais quitter ne sois pas surpris que je quitte te loolu gisaguma ak Ousmane parce que pourquoi ma bëggoon def dégager man man man sans même toog ak Ousmane mooy dama xam ni ñoo ngi avancé. te j'ai beaucoup de respect ci ñi ma nekkal. te bëggoon woon jàkkaarloo ak Pastef. j'ai beaucoup de respect ci ñi ma nekkal j'ai beaucoup de respect pour ma personne et au fur et à ñoo ngi avancé je sentais que maa ngi commencé di faillir dans la dans dans dans l'implication maa ngi commencé di faillir dans l'engagement et doonuma ki nga xam ni day tricher ca la mu ne ça di que même bu dul woon toog bi kii may waxal ni ñuy dégg il est resté une au téléphone parce que je lui ai dit demain dégage de la coalition ñu toog une téléphone mu may convaincre à ne pas le faire keneen ki may wax au téléphone bi ma waxee sa waay gisuñu la ci mbir dama ni ko sa waay ne sois pas surpris que je dégage avant avant même la campagne parce que xam naa ni campagne bi c'est un moment de prise de parole décisive et ku xam Déthié xam nga ni du cuus du laalantu day laal baa mu bàyyi donc pour te dire que même sans Ousmane gis ko ak ñàkk ko gis bi ñu demee ba doxal ba dawal au niveau de la coalition comme au niveau de l'intercoalition je me sentais de plus en plus gêné may ñëw rek ci termine parce que li wax dafa am solo je me sentais de plus en plus gêné à poursuivre axe boobu am na kenn ki nga xam ne nii Saint-Louis bi ñuy mujj gisee di tàggoo ñu ñëw di xool kan mooy colistière am on est en intercoalition xam nga lan la ma bi nee bi mu nee ma mais il faut nga ñëw campagne dama ne ko yow yaakaar nga benn yoon sa xel rek mais ànd ak yow di campagne di jàkkaarloog foofu noonu ñu nga xam ne ñoom laa àndaloon. ñu laa ko waxee directement donc je veux par là c'est un choix que j'ai fait pour ne pas gêner ñi ma nekkal parce que xam na ma xam na ni fu ma dugg gaynde laa ci dama ciy dem ba jeex buñ ma commencé gis may. commencé di freiner ñoom seen bopp xam nañu ni maa ngi ralentir. pour ne pas les gêner avant ça ma terminer pour ne pas les gêner avant ça j'allais dégager pourquoi j'ai dégagé maintenant c'est ça la question parce que sénégalais boroom xel la boo ko waxee mu comprendre mën ñett nag mën na am nit mën na comprendre ànd ak yow nit mën na comprendre malgré ça mu def comme comprendre nit aussi mën na bañ a comprendre parce que aussi noonu la xelam tooy mais li may wax Sénégalais yi pour le dire pourquoi je l'ai fait maintenant c'est par totale honnêteté politique pourquoi xam mënoon naa des ci biir sàmm sa kàddu recevoir ay suffrage de Sénégalais suffrage boo jël foofu c'est des suffrages contre Ousmane Sonko tu es d'accord mm-hmm. ma dem ba biir assemblée nationale ak ses suffrages